nekk fii ci daara Hizbut Tarqiyyah doon fi membre euh, tey nag li nga xamante ni moo war a doon suñu tew fii mooy ci bisu suñu aatu bi nga xamante ni ci la ñuy fàttaliku bi nga xamante ni yaakaar naa def na at ci kaw suuf ñu ñëw nag euh, tey jii ànd ak njaboot gi euh, tàmbalee ko ci ki nga xamante ni moo moo ko fi nekkal muy sëñ Cheikhouna Diagne di ab taawam bis bi ñu woote ko muy bisub ñaan loolu moo waral suñu euh, teew fii ci ci ci daara ji euh, lii nag day lu am solo ndax day loo xamante ni dafa am solo ndax euh, ci lislaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am ñeent yu mu wax ni nit ki bu fekkee dafa bàyyi ko yii rek mooy yi nga xamante ni moom moo ko mën a jariñ yooyu bokk na ci mooy garab goo tabaxoon nga jóge fi garab goo jëmbatoon nga jóge fi nit ñi di jariñoo walla ab teen boo xamante ni bënnoon nga ko. ñeent yooyu bokk na ca nga bàyyi fi doom joo xamante ni su ëllëgee dana fi nekk di la ñaanal kon nag yaakaar naa kon sëñ Atou moom gàcce nga la ma ndax ay doom tey jii lii nga xamante ni moom lañu def nii mooy dajaloo fii nii di ko ñaanal loolu yaakaar naa ay njariñ képp rek moo ci mën a moo ci mën a tuxoo waaw ni mu doon dundee ay membre am moom loolu yaakaar naa euh, ku ni man dinañ doon misaal ndax man bokk naa ñi nga xamante ni bii ñëw ci daara ji boobu ay xale lañ nga xamante ni daanaka euh, lépp luñ xam ci wàllu diine mën naa ne ci barab bii lañ ko xamee ndax fii lañ commencé jàng euh, ba jàng fi arfaan ba mokkal ko fi ba bind ay kaamil jox ko sëñ Saaliw loolu lépp ci ab taxawaayam la euh, bi nga xamante ni it dem nañ ba toll ci war a jàngale it moom moo jox ndigal ñu commencé jàngale fii ci daara ji kon moom yaakaar naa bu dee ci côté bi nga xamante ni man xam naa ko ci rek mu jëm ci wàllum njàng ak jàngale loolu moom yaakaar naa def na ci loo xamante nii wala defar na ay nit ñoo xamante nii tey jii fépp fu ñu maa dem ci àddina danañ maa doon ñoo xam ne ñuy jëriñ société bi la ñu doon te loolu boo ko jëlee ci côté jàngale ci côté métier ak yu bëree bëri bëri bëri yoo xamante ni amoon na ci biir daara xamante moom moo ko daan taxaw daan ko def ci ni nga xamante ni noonu lañ ko bëggee kon si at daal moom jàmbaar la woon joo xamante ni daal dañ koy ñaanal suñu borom rek loo xamante ni moom naanam du dog ba keroog lii daal mooy doonoon sunu seere ci jëmu ji tedd jooju ndax xam nañ ko bu baax a baax a baax ci taxawaayam ci lislaam ak taxawaay boo xamante ni amoon na ko ci liggéeyal Sëñ Tuubaa. sëñ Moutala PDG Tawfekh Production moom lañ toogal ñu fas yéene sànni ay kàddoom ci ko tey di sëñ Ndiaye Diagne mais bisimilah ñu bàyyi la ah, maa ngi lay nuyu di ziare mbokki jullit yi yëpp. di sant bu baax nag ci teewaay fi bis bi nga xam ne ci lañuy fàttaliku jëmm ju tedd jooju muy sëñaatu xëy na sëñaatu moom kenn ku nekk mën nga koo fàttaliku fa nga nekk ndax ñëpp la jëfal rawatina ñu ne ci yoonu murit moo tax buñ demee ba bis bi nga xam ne ci la fi jóge woon njaboot gi daje di ko jàngal alxuraan ak xasida ak ñaanal ko ndax loolu rek lañ ko deseer waaye nag képp tamit képp koo xam ne jullit nga wala ngay murit rawatina tamit nga nekk ci daara ji wala nga jaar fi amal nga ko njukkeel goo xam ne saa su ne war nga ko di dooli ñaan fa mu nekk ndax defal na la loo xam ne say waajur mënaluñ la ko keneen tamit mënalu ko ndax euh, ki la jàngal yar la jàngal la métier def ci yow métier yu bari tarbiya la tarbiya goo xam ne foo dem mën nga faa dund liggéey buñ la liggéey loo tamit mën nga koo def te doo ci am benn problème xàmmee woo toog ci bureau wala ngay def leneen kon kooku yaakaar naa saa su ne war nañ koy delloo njukkal saa su ne tamit war nañ ko di ñaana ndax ñun xëy na li ñu siy témoin sax du bëri si ay loxoom lañu yaroo bi ñu nekk xale jàngee fi alxuraan jàngee fi métier jàngi fi métier yu bari doo génn tamit yor suñu liggéeyu bopp. te jaar ñu fi jaar tamit réccuwuñ ko ndax ñu sant yàlla bu baax a baax ndax euh, suñu moom ni ko daan waxee rek fii képp ku fi jaar yaakaar naa boo génnee boo nekkee tappalekat wala ngay nekk koo xam ne dañ lay gis si leneen kon sa jaar googu war nañ ko xoolaat yaakaar naa fii képp ku fi jaar rek boo génnee suñ tubaab dina la dimbali ba duñ la gis si lenn luy lay doyadiloo te kenn du la gis tamit di la yërëm. waaw loolu li ko waral nag mooy tarbiya gim lay tarbiya ak ñim euh, lay euh, tegee ci yoon ba doo nekk koo xam ne dangay ngay tàyyel wala da ngay gis sa bopp ci lenn ba boo génnee rek di nga nekk koo xam ne daal kuy góorgóorlu ngay doon waaw si ñaatu daal duñ def lu ñaanal ko rek ndax tamit lim ñu defal dëgg yàlla mënuñu koo fay lenn rek lañ ko desal mooy di ko ñaanal waaw di ko ñaanal suñu borom. teeru ko àjjana ya gën a kawe liggéey bi mu doon liggéey Serigne Touba Serigne tubaa fay ko ci lu kawe njortam te sàmmal ko njaboot gi te euh, aaral ko tamit liggéey bi nga xam ne bàyyi na ko ginnaaw muy Hizbut Tarqiyyah suñ borom gën ko yëkkati ca kaw ba lépp loo xam ne bëggoon na ko ci rek mu am ci lu kawe njortam. Awa koo xamante waaw moom sëñ Atou naqari naa waxe neex naa waxe ndax dafa ñuy jàngal loo xam ne ku ñu gis xam ne ke ñee Atou Diagne yar yaruñu ci yëfi caaxaan yaruñu ci yëfi doom du mu am wàcc nga alxuraan muy góor muy jigéen nag ñun ñii mu yoonat kenn ku ci ne. li lay sa diine wax xam nga ko kon moom jógu fi tey du fi jóg ba illaa yawmi diini ndax boo dee liggéeyal sëñ Tuubaa ba jóge fi dañ naa dañ da ngay làqu rek waan doo fi jóge ndax saa yu ñu xëyee suñu xel nekk ci yéen kon moom fa mu nekk dafa mel ni moo ko gënaloon fii mu ne waa kon mu nit ñu ngi koy ñaanal yàlla di barkeelu ci bis bi fii nag kenn du fi wax lenn lu dul alxuraan ak xasida ndax loolu lañ jàngal loolu lañ nàmpatalit kenn ku ne li nga nàmp nag moom ngay moom ngay géex ñun aatu rek lañ nàmp kon aatu rek la ñuy géex ñàkk nañ ko ñàkkuñu ko ndax ñàkkuñu ko mooy saa yu ñu xëyee gis li mu ñu defal ñëpp diñ ci ñee nag ñëpp saa yu ñu xëyee kenn duñu gis ci yëfi ñàkk fay saa yu xëyee kenn duñu gis ñu taxaw ci kanam bu jigéen di wax kon ñun amaluñ ko am am moom moo ñun ñoo ko amee làq mais moom amee lu ñu àq ndax lim ñu war a def rek defal nañ ko li mu war a wax lépp wax nañ ko moo maase bi waaye jër bi ma joxoon yaakaar naa jox ko ñu bari jox ko ñu bari ndax ni ñu doon dunde mooy ni mu daan dunde ñun rek liggéey jaamu yàlla bu sëñ bi xasee wax amatul soxla fenn su si liggéeyu sëñ bi nag bu jotee aatu jaañ moom bu liggéeyal sëñ bi jotee koo mën a doon ku la mën a jur boo taxawee ci kanam sa kaw lay jaar jàll ak boo mën a doon nag liggéeyal sëñ Tuubaa rek ko ñoroon dara ñoru ko liggéeyal sëñ Tuubaa aatu ah, keroog mu keroog bu mu wàcc keroog bu mu noppaloo lay doog a wàcc musta wàcc bu mu nekkee étudiant ba keroog bi ñu ko dencee musta wàcc musta wàcc ci kaw suuf liggéeyal sëñ rek ko ñoroon te ndamu sëriñ Tuubaa rek ko mas a neex lenn lu ko mas a neex lu ndamu sëñ Tuubaa amul doom yi mu yar ak yi mu jural ñoo ci yem kenn ku ci ne fexe na ba nga wàcc alxuraan